ngir jokkoo ak ñoom woote leen ci numéro yi di 77 389 75 51 wala 33 957 61 85 adresse mail free site web www.free.sn. Free, l'emploi, notre métier. Free entreprise bi leen teewal ci diwaanu Mbour ngir képp ku bëgg liggéey wala ay liggéeykat Free moo leen di may seen émission الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن احتفى آثارهم إلا يوم الدين السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokk jullit yépp di leen ziyaara ci bés bu tedd bi di sangu bés yi di yowmul jumaati ci weer wu tedd wi di weer wi nga xam ne ci la yenent yàlla muhammad gane àddina ci ndokkeel di ñaan yàlla yal nañu yàlla defal njëggalu àddina ak àllaaxira yàlla may ñu wér may ñu sutura ci barke bi sallallahu alayhi wa yàlla may ñu ñu ñépp sunu xol yi bala ñuy sàngoo suuf yàlla na yeex yàlla na yàlla def ci cofeelu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa ci ndokkeel jullit yépp jiital imaamu ratib xaaji Malick ñang ak mboolem imaam yi topp ci ginnaawam yépp ñaan leen yàlla sutura ak ijaaba ak xabul yàlla dàq leen bakken ak seytaane yàlla bu ñu gis seen bopp ñu nit yàlla bu ñu gis suñu bopp ñu nuyu mag ñi nga xam ni ñoom la yàlla jiital ci jumaa ji jiital ci bàyyil xaaji mbay moroon ñaana leen yàlla wér yàlla dool leen yàggal suñu kanam ñi tawat te nekk ci kër yi yal na leen yàlla may wér ba delloo siwaat leen ci mbooloo mi ci barkent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal mbokk jullit yi nga xam dañu génn àddina nekk ca barzaq yal na yàlla jéggal leen yal na yàlla yërëm leen ñaanal sunu yaay Adja Jaaro Ngom fa tabaarakallaahu ak soxna Xadi Saane bu Baay Alxaaji Seex Saane ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla wane la ci aljana ya gën a kawe ci barkent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ni soxna jaara ngoom ak soxna xadi saane ay jàmbaar lañu woon ci jumaa ji fa tabaarakallaahu ci joxe seen farata ak ci taxaw jumaa ji xadi saane daan na jóg 4 heures du matin nga romb ko fii muy bale jumaa ji fa tabaarakallaahu di raxas toilette yi loolu yëpp nag yàlla na ko ko yàlla faye aljana noonu la ñuy liggéeye yàlla bala di ko waajale dee ndax dee mënul ñàkk kullu nafsin zaa'iqatul mawti وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزع عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الخرور يلا تيل نيو يتي أدنى نكر لغو خمني تبارك الله كوكا جاب كريت دانا كالي أولف دي وحني جابونغا تي تشونتو كوي داو كون يالنا نيو يالا دولي سوتورا yàlla na leen yàlla wane la ci aljana ya gën a kawe ñi ngi leen koy jaal ci turuwaa jumaa ji yépp fa tabaarakallaahu euh, imaam nag tey moom moo joxe tem ni nañu waxtaane lan mooy dëkkandoo ak àqi dëkkandoo te buñ ne dëkkandoo ñun mbuur yépp ay dëkkandoo lañu buñ nee dëkkandoo ñun senegal yëpp ay dëkkandoo lañu léegi sax dem nañu ba nga wax ni àddina bi yëpp ay dëkkandoo lañu ndax dañuy wax ni la monde est village planétaire am na foo xam ne àddina bi ñëpp fay daje moo tax ku nekk war a sàmm sa diggante ak sa moroom ku nekk war a sàmm sa diggante ak sa mbokk ci yi nga xam ni mën nañ ko tolorante suñu biir ñu tolore ko ci yi nga xam ne mën nañ ko éviter pour mu am ñu éviter ko ngir ñu mën a dëkk ci jàmm ngir ñu mën a dëkk ci sutura ngir ñu mën a dëkk ci jàppalante te yàlla rek tax waaw ndax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale ne jibril mësul dañ bu ñëwee ci moom balaa muy tàqali ko ak moom mu dénk ko dëkkandoo xatta zannantu annahu sa yuwaarisu ba mu njortu ni alquran mën naa wàcce aaya buy saxal nit su génne àddina bu ñu koy miiraas nañu génne paaru dëkkandoom kon dëkkandoo lu mat a bàyyi xel la lu mat a ormal la lu mat a sàmm la surtout nag jamono bi nga xam ni euh, xaw na yëngu xaw na jaxasoo ci njaboot yi doonte sax kilifa yi amuñu intention ci def loo xam ne dañuy lor seeni dëkkandoo walla dañuy perturber seen dëkkandoo waaye seeni njaboot moo jar a bàyyi xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne fi yàlla teg nit ormal dëkkandoom ne mi ngi mel ni fi yàlla teg nit di ormal waajuram bu jigéen xurmatul jaari ka xurmatil ummi ni ngay ormale sa waajur bu jigéen xam ni bi dafa wax ni aljannatu taxta aqdaami ummahaati ne noonu ngeen war a ormaale seen dëkkandoo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ni dëkkandoo ñetti àq la am am dëkkandoo ñetti wàll la wàll bu njëkk bi mooy xaqul islaam ki nga xam ne ngeen bokk islaam bi ba pare nekk ay dëkkandoo ñoo bokk dëkk ci koñ bi bokk nekk ay jullit ne dañu war a sàmm suñu àq islaam suñu diggante ba duñu lorante duñu tooñante duñu yàqante ko yàlla wax innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wa taqullaha ñu sàmm sunu àq yooyu bàyyante ci xel ak dëkkaale bi it ku nekk bañ a lor sa moroom bañ ko lor ci ci lépp loo xam ne rek loraange lay jur sa diggante ak sa dëkkandoo nga éviter ci loo mën moo xam day bàyyeekoo ci wax walla ci jëf éviter it say njaboot. ci ñoom it tabaarakallaahu ñu taxaw taxawaay boobu nee na am na ci beneen àq boo xam ne àqu deret la kooku yéen a bokk deret yéen a bokk askan bokk nekk ay jullit mais bokk dëkk muy ñetti àq yooyu ki nga xam ne bokk leen deret mais da ngeen a bokk dëkk bokk jullit ñaari àq yooyu ngeen séq ki nga xam ne nag dangeen a bokk dëkk te nekkul jullit ci beneen tërëlin la bokk su boobaa nga respecteel ko moom it tabaarakallaahu sa ak dëkkaale ak moom waaw war raayan na xuquqal jaari walaw kaana kaafiran moo xam du jullit wala ci beneen tëralin la bokk mais yéen a bokk dëkk nga respecté dëkkaale bi nga bi la yàlla boole ak moom ngeen dëkkaale moo am na yéen a bokk appartement wala yéen a bokk dëkk ci dëkk bi wala yéen a bokk quartier wala koñ fa tabaarakallaahu ku ci nekk war na respecté àq yooyu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ni almaru mahaman ahabba in kuntum tuhibbuna allaha su fekkee da ngeen a nekk ñoo xam ne da ngeen di woote ni bëgg ngeen yàlla wa rasuluhu ak yenentam ba sallallahu alayhi wa sallam yenent bi nee na fa xaafizu na ngeen wattu am na ngeen éviter ala salaasi xisaalin ci ñett yi waaw maam na ngeen farlu fegu ci ñett yi benn bi mooy sa dëkkandoo looy wax ak moom na nekk dëgg sidqul xadiis si wa adaawul amaanaat yi na matal kóllëre ci moom ba boo fa aboon kuddu ci muwaar sax wala bale wala rato soo bare na ko delloo ndax waradul amaanaat ila ahliha mu ni tamit waxisul jawaar yi na ngeen sàmm seen dëkkaale waaw sàmm seen dëkkaale ba moytu lu juddoo ci violence walla luy juddoo ci yàqu-yàqu ku nekk loo ci mën a éviter na nga ko éviter sa diggante ak moom waaw moo xam da ngeen a bokkul ay waaso na ngeen moytu kenn ku nekk di xas moroomam da ngeen a bokkul ay tarixa na ngeen moytu ku nekk di ci xas moroomam na ngeen a bokkul diine na ngeen moytu ku nekk di ci xas moroomam da ngeen bokkul parti politique na ngeen moytu ku nekk di ci xas moroomam te Sénégal euh, at yi dugguñu fukki at a ngi nii ci ginnaaw maanaam li ñuy tuddee violation verbale dafa ñu dugg waaw te dara yombalu ko lu dul média yu bari yu amul programme nga xam ne ku nekk lañuy tàllal micro ngay wax lu la neex te loolu jullit bu nekk war nga ko éviter ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla mayul benn jullit mu yëkkati kàddoom di teg lu ñaaw ci mbokk jullitam al muslimu man salima al muslimuna min lisaani wa yadihi jullit dafa war a fekk làmmiñam ci mbokk jullitam mais dafa war a fekk ay cëram ci mbokk jullitam loolu tamit dinañu yóbbee ba ci violation physique yu mel ni sunu dëkk yi bu ñu duggee ci vacances ci newetaan yi xale yi di rayante ci stade yi man bërki démb fii laa jullee géey ci jàkka baay Malick bii mais daanaka su suñu sujjóot bu mujj la lacrymogène ni ñoo ko yàq te dara warul ko lu xale yi xeexoo ci stade yi ak di rayante te ba ñuy wax lu jëm ci nawetaan warul nekk lu ñuy tojante ay bopp warul nekk lu ñuy yàqante ay diggante parce que sport ñi ko fent sax dañuy wax ni luy boole la ay initiative di boole ci ci wàllu développement mais warul nekk ci wàllu violation ak wàllu yàqante ak wàllu rayante te loolu bari na trop ci sunu réew mi moo responsabilité partagée la boo xam ni koñ ba bu nekk kilifa ya fa nekk ñoo war a jóg sol ci seen seen seen dàll dox ci wax ci parce que buñ ko deful ci A it dañ ko def ci B am ku ni sama yoon nekku ci sama yoon nekku ci. ba jeeye am wala musiba am sa yoon dina ci nekk ndax bu ñu yóbboo say njaboot police di nga fa jaabante bu ñu yóbboo say njaboot ci yoon di nga fa jaabante bu ñu rayantee ba gaañante yi tamit fa tabaarakallahu di nga jóg kon nag jóg ca ba muy teel loolu faw kilifa yi jóg di ci wax ngir ñu wàññi violence bi ngir ñu wàññi ay bi te xam ni euh, leneen lu dul newetaan sax jaru ko beneen bi ci wàllu dëkkandoo ñu sàmmante suñuy àq mooy suñu aada bi nga xam ni ñun ñun waa Mbour yépp ñoo ko moom muy kankurang ku ne xam na ni léegi bëri na violence li ma wax rek maanaam kilifa yi nga xam ni ñoo ko ŋànk ñoom violence suñu xeexuñu xulowuñu waaye léegi ci biir jeunesse bi moo ci am xale yoo xam ni daanaka sax dañuy jëfandikoo loo xam ne dañuy tàqali ko ak seeni sago yàq oto jàmbur gaañ nit fekk nit ci buntu këram dóor ko te loolu yépp dara du ci dëgg te waajur yi nañuy veillé ci seeni njaboot te te bàyyi yàlla xel bi nga xam ne dafa wax ni waqifuhum innahum mas'ulun يا أيها الذين آمنوا خو أنفسكم وأهليكم نارا تأديكاشن بلغي مانام دانيو باي خالي باي لن بوي لن تلو لن نخ درق ببارينا خالي لسط لسط أمول لسط تونو لغي ماني لات بن خالي بركي دمو مانيكو ñaata façon drogue la xale yi di jëfandikoo mu ne ma am na bu ñu tuddee suus ma ne ko luy suus mu ne ma mooy loo xam ne boo ko jëlee yow dootoo xam jàññ ak joor dangay ngay suus suusi rek waaw mën nga rey nit sax sa ko tey ma ne ko ak ban mu ne ma am na bu ñu tuddee volet mu ne ma volet mi it boo ko jëlee moom pare nga ci àddina bi tànk degré bi wàccul doo doos bi jeexul mu ni ma léegi am na beneen bu ñu génnee nga xam ni xale yëpp dañ ko xale yi tollu 15 ans ñoo ciy naan ba màndi góor ak jigéen mu ne ma loolu mooy vodi vodi waaw dañ koy jaay ci boutique yi xale dañ koy jën ni tat waaw ma ne ko ak ban mu ne ma am na bu tuddee dëgër këj boobu nee na ma sax yaxu nit ku dee lañ koy defaree mu ne moom boo ko xasee jël moom daanaka xàmmeetoo sax ndey bu la jur wala baay bu la jur wala keneen waaw te yooyu moo fees ci société bi fi toll nii ci xale yi te amatul contrôle yu ci bari nag ci yooyu lañuy ñuy occasionné wu ñoo nekk ci estaat yi ñoo nekk ci kankuran yi ñoo nekk ci leneen ak leneen fa tabaarakallaahu euh, nga xam ni dañuy jeex jàmm rayante ak violation ak def lu metti nit rek lañuy lañuy lañuy bëgg ci seen xol yi te loolu mbokk yi war na mën a ñàkk ñun ñoo bokk lépp nañuy rafetalante suñuy dëkkandoo nañuy yéenante jàmm nañuy demlante ci mbaax ak njekk waaw xale yi xale yi tamit jël loolu def ko seen xol yi parce que xale boo fi gis dafa am jur yu baax am maam yu baax waaye nag ñoom ñoo jël seen yoonu bopp ngir jamono te ku nekk nag war nga daw kersa say waajur di bàggante police di bàggante ci yoo xamante ni jaru ko nga yàq sa àddina yàq sa avenir loolu yàlla nañ ci yàlla musal su ko defee mbokk yi imaam moo taxoon mu ne nañu jël thème boobu waxtaane ko ñu xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñoo bokk réew mi ñoo bokk dëkk bi waaw kuy fubali stade nga dem fubali Ablaye Niang yàlla na ko yàlla yërëm bu masaan di dem stade ñu ko Ablaye ñaar ñu gañee mu ni de ñett rek a a am dangeen di gañ baa ñu gañ leen wala ngeen matsi niin mais du ñaan mukk pour kenn gañee dana ñett yooyu rek a am te koo xam ni soo tojee boppam ëllëg yaay dem hôpital seeti ko jarul toj boppam koo xam ni soo ko tëjee police ëllëg yaay dem génne ji ko jarul tëj police kon nañ ko def ci fair play rek rafetal lépp mu jeex ci jàmm ñépp am jàmm yàlla nañu ko yàlla defal su ko defee imaam dafa waxaat ni dafa am ñaari jullit yu ñëw ci moom tawat ko nag aajo boo xam ni eh, bi ma koy déy léegi daf ci def yitte ngir nit ñi jàppale leen te yàlla tax kon xaj mam ngóor nga jóg ak ku mën a jóg rek ci biti ñu laajal ndeysaan soxna xadi mi xadi saane mii dem démb yàlla na yàlla teeroo ko ci aljana ya gën a kawe ku daan jàppale doomu aadama yi la ci social su ko defee beneen bi mooy dimanche suba dañuy defal fii maam Abdou Aziz ñaan à partir de dix heures et demie jëm onze heures ci biir ñaan googu nag dañuy laaj képp ku am yére yére bu baax wala dàll bu baax nga xam ni soo ko joxee sa mbokk jullit dina ko daloo ñi ngi lay ñaan nga indaale ko bu dee góor bu dee jigéen bu dee mag bu dee ndaw kaamil bi nag 10 heures lay tàmbale incha allahu taala ñi ngi ñaan jullit yépp ñu ñëw teewe ko incha allahu taala ku amit ndimbal bu mën a dem ci ñi nga xam ne ay taalibe lañu ay daara lañu yor ak ñi nekk ci dëkk àll yi loolu rek lañ ci jublu ngir roy jëfu yenent bi sallallahu alayhi wa waaye ngir roy ci jëf maam Abdou Aziz Sy Dabakh radiyallahu taala anhu mu war a doon nag dimanche bii ñu dëkkmal fii ci jàkk ji ñu ngi koy yëgal mbokk julit yépp wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki diwanu Mbour ak liko wax sen jaxle jeexna yow mi bëgg am liggéey entreprise bi soxla ay liggéey kat ak képp ku bëgg def formation personnelle wala audit ci wàllum ressources humaines Free di focus recrutement et intérim teew na ci diwanu Mbour ngir gunge leen. Free mu ngi nekk fii ci diwanu Mbour immeuble IZ premier étage jàkkaarloo ak salon d'or ngir Cognon, ak ñom leen numéro yi 77 389 75 51 wala 33 957 61 85 adresse mail free.free.sn, site web www.free.sn. Free, l'emploi, notre métier. Free entreprise bi leen ci ku bëgg liggéey wala ay Free moo leen doon may seen émission albayane